félicitations directeur Alaaji Assane Gueye déglu naa tey vraiment wax sa xalaat ci journal bi nga xamante ni mu ngay présenté tout le temps sur la RFM la meilleure des fréquence Assane ma jox cël en tant que directeur euh, de la RFM te comme wax sa xalaat moom am na ñuy dugg ci téléphone bi mais am na tamit ñu mën a def seen vidéo waxtaan mais man damay gis ni ngay argumenté. bokkul ak comme ni nga doon argumenté ci gene ci euh, jamono yu Macky Sall parce que je vois que ni actuellement instant bi nga gën a am audace wax yenn dëgg yi que gouvernement Macky Sall mooy dëgg gën a waroon wax gouvernement Macky Sall waxuñu leen ko mais instant yi avec euh, ce nouveau régime bi nga xamante ni xew na euh, am na loo xamante ne am nga audace pour wax ko maintenant mais man je vois que loolu <laughs> départ gaynde arrivé muus la parce que gouvernement bu am deux mois demagul fenn te lépp lu ñuy kaas si biir Sénégal am na loo xamante ni que yéen xam nga situation Sénégal comment ça fonctionne gis ngeen muy wàllu économie muy wàllu euh, infrastructure cest à euh, muy euh, cest à Sénégal fépp ay metti te te loolu li ko waral. du nouveau régime bi moo tax nu koy wax de non non non dafa am lu tax nu koy wax kon donc man je vu que man je vois que Assane euh, am na loo xamante ni tamit il faut nu bàyyi ci xel régime bi soog a ñëw mënul xëy régler lépp de A à Z ndax li fi ne ak li fi bàyyi ak li nga xamante ni état bi liggéeyoon na ko avant ak li ci ay tooxi duuna am fi te waxuñu ko woon nu bàyyi ba tey di ko soog a wax attention. dañuy tëb rek pour forcer état bi pour nu koy lijjanti loolu ni nga koy lijjanti sax ndax boo xoolee ci benn weer ak ci ñaari weer ni ngi def jaloore yu am solo nag yoo xamante ne que kenn euh, mën nañ wax ne xam nga bu yàgg gars yi dañ naan def sax nu xëy population bi ñëpp di ko wax mais gars yi dañuy liggéey en sourdine c'est-à-dire mooy dañuy xëy lijjanti lu bëri ci réew yi loo xamante ne que sax xaluma kenn ko waxtaane fekk gars yi ñu ngi koy faj. man yaakaar naa ni yëpp balaa ñu koy wax ah il faut donner le temps à ce régime bi nga xamante ni que am na régime bi fi jaaroon daf fi douze ans te ñun ñaari weer nañ fi amagum kon Sonko mooy Jomaay Jomaay mooy Sonko li am solo mooy lépp lu ñuy wax lu ne natt leen ko ci état bi fi jóge ak ban instant la fi état bi nekk ak ñaata temps la def ak yan jaloore la def ak aussi yan jaloore la duggagul c'est très important parce que état bu sax eh, ñetti weer wala ñeenti weer nu bëgg ko yan loo xamante ni mat na douze ans yaakaar naan loolu lu naan <laughs> eh, loolu moom eh, lu rëy lay mën a doon quoi loolu mënta ne donc euh, ce qui est important euh, nu jox temps tuuti gars yi nu xool après qu'est-ce que ça va donner mais en tout cas sama directeur maa ngi koy féliciter sama impression laa doon wax ci vidéo bi sànni ko parce que euh, wax sa xalaat la. ñun ñëpp ci réew mi neen nekk dañuy wax suñu xalaat jomaay mooy sonko sonkoy jomaay